Ah, ils sont. Ils sont. Sani, mets-lui là que je l'entends dans. lui l'oxygène en attendant. Sani. Sani. Il faut couvrir le B1. waaw damaa maa ngi doog a pare kenn kii. Mhm. koo xamante ne dañ ma xool saytu garab nga xam ne dafa war a jëlee lépp lu aajo ci euh, feebar bi xew actuellement na ñoo xam ne tamit ñu ngi fi yore bi dañ daan dialysé donc fii la ñuy teg leen di leen dialysé fi ñuy jël am rek mooy yore na feebar bi da doon dialysé léegi machine bi pare na dama koy testé pour jëlaat keneen. non feebar bi moo ko parce que feebar bi day laal lépp quoi. am na yoo xam ne nag dañoo amoon feebar bi ñu am dañoo amoon insuffisance rénale chronique ci ñuy jël après te amoon insuffisance rénale chronique léegi mu feebar donc foog muy continuer ay loolu war a mu war a ñëw après. Yeah.

trop mais am ñoo xam ni boo gisee ñu ngi commencé amélioré ñu ngi commencé seen feebar ñu ngi commencé amélioré tuuti. Euh. réanimation boo gisee si àdduna bi yëpp réanimation ñi gën a sonn ñoo fay dem donc loolu xel mën nangu ni bu fekkee ñu gën a sonn fay dem dëgg-dëgg ñi ñi faatu ci gën a yi gën bari moo tax ci àdduna bi yëpp dañuy wax ni réanimation téeméer boo jël ci gën bari ñaar fukki ak juróom.

bu ñu xoolee bu baax euh, lu ñu am ci ñuy gën àdduna si Covid bi moo gën a néew que li ñu am bu Covid bi amul waaye du du càgganu rek ku ñëw fi am Covid da ngay a àdduna sinon bu fekkoon loolu la kon ñu tamit du ñu liggéey parce que danaan comme amul njariñ ñëppay gën àdduna aussi dañuy xaw a baisser les bras waaw li tax muy compliqué parce que feebar bi déjà xam-xam bi ñu ci am am ba wéragul bu baax feer bu bees la feer bu bees boo gisee chaque fois euh, le temps que nit ñi di comprendre mën na am problème yu bëri yu muy indi. boo gisee ñoom ku ñu nekk nii nekkul dans le coma te muy ñett nit nekk ci dana ko nekk dans le coma gisoo fa kenn boo bu gisee loolu réanimation du coma c'est réanimation mooy sa cër yi si biir yaram bi ñooy lâché ñooy bàyyi ñoom la feer bi jàpp mun mën nga xoolee fekk da nga

ñu def ndànk parce que su bés bu ñoom fexe bu leen dal mooy gën a garaaw que ñeneen ñi moom malade chaque seconde dañ ko gis moo tax ñu def ñu nekk ci biir mais aussi ñeent la ñu ngi ci biir sol tenue mais aussi ñun tamit dañu nekk ci biir mais di xool parce que pour suñu jaaxle yi ñu mën dugg fekk leen mais réanimation mënoo bàyyi malade bi c'est une surveillance continue da nga war gis malade bi tout le temps noyem nan la mel xelam nan la mel kholam nan la mel réewam nan la mel tout le temps lépp da nga ko war en continu C'est ma définition réanimation donc loolu moo tax ñu am ay appareils yuy surveiller loolu ba pare nag appareil du doy il faut que nit ñi di gis pour mën agir en tout moment parce que malade réanimation c'est imprévisible ma nga toog malade bi wax ak yow subitement rek mu jaxasoo donc moo tax mënoo ko sori trop dama tax liggéey bi di metti moo bo boo fi dañuy bàyyi ñetti médecin yu nek fi toujours ak ñenti infirmier ak huit agent d'hygiène bi xamné ne nek fi toujours parce que soldé ak sumi bi mënoo ko défa sa bop foog moom ñu lay soldé sumi donc motax liguey bi day metti ñoo bu xéé xëyee défé 24 heures ñii bi ñeen ñëw loolu mooy tax liguey bi xaw woyof mais ba légui dis na waaye jar na ko ndax aussi bo boo gisee nit fi mu aussi nga nekk pour dimbali ko pour mën a retrouver et capacité loolu aussi coono bi dina ko jar. effectivement ñun dañuy liggéey centre national la soit day mën di jógee urgence boo gisee bi ñu commencé ba léegi am nañ fanweeri nit yu jógee urgence parce que foofu dañuy isolé nit ñi yoo xam ne isolé nañ leen ñeen ñu yóbbu leen pavillon bu Flers ñu testé leen ñu positif parce que sonn ñu woon ñeen ñu indi leen fii testé leen ñu positif wala ñu jógee pavillon bu fleur directement parce que dañu dañoo dañu keneen mën na fi indi won wala ñu jógee si yeneen yeneen yeneen gox yi am ñu fi jógee Touba ñu jógee Tivaouane ñu jógee Thiès ñu jógee yeneen centre de santé yi mais souvent dañuy collaborer ak SAMU ministère même su ñun bu ñu suñu directement comme démb c'était le cas dañu woo SAMU ñu ne am na ku ñu woo nangam ak nangam nangam pour SAMU jël contact ak ñoom pour jëm leen indi daan nañu def souvent feebar bi moom am na bon ñun xam nañ ko sinon duñu toog fii presque ça fait ñaar fukki fan ñu fay nelaw donc bu amul duñ ko def donc am na lu ñu foog ñu xam ne am na. moo tax nga gis ay cas très grave nga gis ni ñuy sonn soo amuloon ko def donc am na mais am boobu moo tax nga war ko ndangu pour ñu dépister la pour mën la faj te bu fekkee da nga am signe de gravité aussi ñu teel ko gis.

te yàlla mën na ko def.